jërëjëf moi moi j'ai un problème sur la man j'ai un problème la loi d'amnistie pourquoi am am problème mooy qu'est-ce qu'on en réalité am na ay nit yu fi yàqule taal nañ fi ay nit taal nañ fi bus yàq nañ fi saccagé nañ fi cette TV bi attaqué nañ ko fi léegi loolu noonu yëpp day nul pourquoi. parce que cette TV bi attaqué wul seen télé. bi ñu leen di garder fii gendarmerie. yegsiwuñu kon su ah, fi. cette TV may mu ne fay waxoon na fi teg gendarmerie que a pris ses responsabilités donc tout ça amoon na fi ñaanaluñ leen ko yàlla yàlla bu ma. TFM loolu je veux dire que ni que mooy que ni que man problème bi ma ci am mooy

ñuy ah, en tout cas am na lu si nekk ah, a ah, na loolu noonu yëpp dañ koy suul nëbb ko moi il y problème et loolu sénégalais yi war a ñu tëj ñu tëj parce journal jot na Moussa xam nga lan jaaxal